waaw jàngal bi may def rek euh, booy xool euh, dama ne woon sax duma ci communiquer mais àdduna loolu dafa yàgg ci àdduna ba ci ba ci yónent yi sax ba nga xam ne ñii da nga xam ne ay yàlla da leen di yónni ba ci seen ay njaboot yenn saa yoo na ñuy bëgg mel sax duñ ko mel mais du teewul duñu ñu xàddi dañuy jàpp rek di ko waar. di ko defar di ko waar di ko defar ba keroog xëy na muy xam ne kii li may wax dëgg la mu teg foofu tànkam ñun nag fa lañ tollu ci sama diggante ak xale yi parce que li indi loolu dama leen jaboote ñoom ñëpp am ci ay am ci ñoo xam ne samay doom lañu ñoom ñu bàyyi seen lépp ñëw ànd ak man ne yow lañu yow lañu bëgg a liggéeyal ma ñëw daal di nangu loolu rek te yàlla tax ñuy liggéey nag teg ko ci yoon duñu xàddi nag duñu découragé parce que àdduna loo gis rek. Euh, un indicateur du gaaw a xaddi du gaaw a bàyyi waaye ñoom ñëpp que muy jéen muy mbajik ñi nga xam ne maa leen jur ak ñoom ñëpp samay doom muy bébé jéen ak soxla lu ñuy génn di xool référence fen nañ xool si man rek macha allah suma carrière yéen ñëpp fi leen fekk kenn mooy kenn mosu si dégg loo xam ne lu négatif la parce que lan la woon sportif laa woon ay sportif laa daan àndal ñu boo ko bëgg-bëgg di ànd di demandoo. entraînement di ñibbi si kon li ma leen di conseillé mooy nañu ut ay xaritu sportif sportif da ngay ut xaritu sportif ngeen di xàccandoo di dóorandoo di deme entraînement heure di ñibbi si heure boo ko defee rek yàlla mun na def du am problème ba Diène xale la yii yëpp des fois mun na doon chemin la mais comme ni ma waxee dinañ ko gën a téye duñ ko bàyyi parce que nit ki bu nee si jafe-jafe de doo ko woon ginnaaw. bi njëkk biñ ko jiiñee moo def deful moom xam na yàlla xam na ñëpp taxaw nañ si ñëpp jàpp si. daj ci ay coono ba yàlla def ñu acquitté ko bii aussi mu ñëwaat dafa nekk sax si mbir dafa nekk si loxo yoon fi mu nekk nii parce que ba ni may wax ak yow nii wooguñ ko defuñ ko dara pour ñu seeti ko sax ja am am kenn amul droit seeti ko li ñuy def mooy pour le moment toogandim di ko xaar di ko ñaanal mu génn seeg jàmm je crois bien que cette fois ci bu génnee on va appeler toutes les sages de l'écurie ak mag ñu teg ko xamal ko ne nag àdduna boo bëggee baax fi ngay teg sa tànk leneen li moom yàlla nañu si yàlla musal boo ko bëggee it ah c'est à toi de voir mais je crois bien que ne liberté liberté amul lu ko ëpp si àdduna liberté amul lu ko ëpp si àdduna jar jar jar na lu ne ni ni ni ni nga xam ne wax nañ ne boo daree jaree euh, boo naree uti xam-xam demal ba Chine waaye boo bëggee aussi boo gisee boo bëggee liberté dëgg mun nga dem sax fu ëpp Chine parce que pour nga am xam-xam il faut nga libre mais ñu teel a benn place demoo di ko kooku yàlla nañu si yàlla musal. Euh, pour le moment mënaguñu wax waxu sanction. parce que dafay prématuré dafa nekk ci ay jafe-jafe nit du nekk ci ay jafe-jafe nga ëllëg di ko di ko sanctionné waat da nga koy ñaanal mu génn ci jafe-jafe ba ñëw bu ëllëgee ba nekk à tête reposée li ngay wax nga wax ko teewul nag bokkul ak laaj euh, euh, bokkul nag ak à chaque fois ñun entraînement chaque entraînement wóor na dirigeant yi fi nekk yëpp tey boo leen laajoon ñu la la kii lu mu lu wóor lay wax si presse laay wax du ma waxantu parce que ñoom li ma def ci làmb defaguñ ko coow li ma am ci làmb amaguñ ko ndam li ma yàlla joxagum am donc man awma seen complexe chaque fois bu ñu entraîné ma leen teg ci suuf ñëpp toog ma naan leen wax leen jaar leen fii baax moytu leen lii boo bëggee doon lii nii ngay mel nii ngay mel nii mel boo bëggee doon lii ni ngay mel loolu na communication bi dinañ ko continuer euh, peut-être li metti rek mooy que euh, fii ngeen di xel di daje entraîné leen. def seen bopp xam-xam di leen di leen yee ci àdduna mais après boo boo jógee fii da ngay ñibbi ko ku ci ne dem sa kër kon damay ñaan aussi di lancer aussi les parents que nañuy bàyyi nañuy veiller si seen doom yi parce que écrit bi li ñu am ñun fii la de conseil la def si yow xam mu bëre conseil la ne àdduna li yëg-li yàlla xam na loolu waaye nag lay des nag sa biir kër la loolu parents yi ñoo si man a veiller mais fii moom ñu ngi leen di tàggat si yoon ak discipline